بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نحن اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الذي قال لكم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق soo ko waxee sori mbokk jullit ñi mbokk taalibe yi gannaaw sant yàlla ci ci yeneen tam ñu ngi a sell di leen gërëm di leen bal xaq di sàkk seen ñaan jël ndokkeel ci teewaay bi ci guddi bu rëy ko waral muy guddi njëriñ muy guddi texe وطفي وكيف فتنة كادو ci loo xam ne yaakaar nañ ci njëriñal adina ak njëriñal alaxira pexe adina ak pexe alaxira ndax su moom rabul izza fi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ci azal la amoon jaam yi mu gën a sopp ci ay jaamam gën leen a fonk ci ay jaamam dana leen a féetale wetu tànneel ci ay jaaru tànn leen ñu war a jaar fii ci adduna bi am na lii ñu leen ci sant ñu war koo di ñu ci tegu ñooy nga xam ne kii mu bëgg a waxtaane tey guddeem ci bokk ca tànnee fi ñooñu mu ngi guddi màggal lan mooy màggal màggal bi ñu wax reconnaissance maanaam nit defal na lu rëy wala suñu borom defal na lu rëy ko ci jamono yëkk ko ci nga xam loolu la suñu borom defal nga di ko jox njukkal war ko ne yëpp nga xéewal bi mu la ndax xéewal waxtu bu ko suñu borom joxee jaam te sant ca mbugal wàcca kon nag ki yàlla defal xéewal mu xam xéewal boobu wëlbatiku jubloo boromam sant ko la ko ca suñu dencal bu ko gisee ëllëg ku dul moom dana ko ñee su borom li mu bind doomu aadama la ci ndax ki ko gënal ci lim bind lépp mu di sallallahu alayhi wa sallam ci doomu aadama yi la bokk te bëgg ku suñu borom bëgg wala fonk ku suñu borom fonk moom rek la jaam mën a defal suñu borom daanaka jëlaat boobu yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wa salaam bu ko suñu borom ne yow la ma mën a defal ak li ma la defal lépp yow la ma defal yow Moussa rafet nañ ko ay yoon Moussa wax lépp lu mu mën a jaamu yàlla suñu borom ne ko loolu sa bopp rek la ko defal defaloo ma ko ba mu jaaxle ko moom kon lu ma la mën a defal nga xam ne lii yow laa ko defal dina ko nga fekk jaam boo xam ne bi bëgg naa ko nga bëgg ko ngir man ngir bëgg bi ma ko bëgg kon jaam bu suñu borom teral gërëm ko barkeel mbiram yëpp ku yàlla texeel sa xol day nangu loolu nga nangu koo waxe nangu koo jëfe bu ko defee yow bokk nga ci ay bagages ña nga xam ne fu mu dem ëllëg yóbbaale ko adduna moromu waay la adduna bërëb bu liggéey la fa ngay fayoo mooy yow ak yàlla adduna nattu la moo ca yow ma alastu jaar ñëpp wuyu ne ma seen borom ñoom ñëpp ñu ne xàkkaay mën na danaa seet ñi ci dëggal ci yéen ak ñi nga xam ne li ñu wax ñoom ci ñoom indi leen ci àdduna tàkkal leen xel xamal leen bànneex tere leen digal leen ñii àdduna fab bi leen mu wan leen taaru àdduna dañu wan gannaaw yàlla wan gannaaw seen ëllëg jublu ci àdduna rek ñu fàtte ko ba faw ñii di def léeg-léeg ñu xool àdduna wala def ko xool yow na xiyaar wala ñu xool seen borom am ay diggante yoo xam ne seen xol dana ko nekk ci yàlla dana ko nekk ci bàmmeel dana ko nekk ci sukuraat ak jéggi siraat loola de am tomb bu weex bu mu def ci seen xol mu di ko leeral loolu bari wala mu néew bu at yi génn àddina tomb yooyu mu di tomb yu leer ak tomb yu ñu ñu lëndëm ñi nga xam ne bànneexu adduna ak bëgg daraja ak bëgg adduna ak tàggal moo koy fon ci xol ñu ñëpp dañuy dajaloo ñii fii ñii fii te kenn nag jaam bi gëmoon yàlla la jaamu gi mu jaamu mu néew mu bari mu bon mu baax dana moom si moome bu ko lëndëm yooyu ëppee doole mu muur ko mu dal di am li wax mu bu rafetul fekkee ne tomb yu weex yi ëpp na doole jëf yu rafet yi présenté si lee da dàq seytaane ngir xam ne day teew ci jamono boobu ngir bëgg a xañ waa ji jëf yu baax yi mu defoon bu leer boobu jollee seytaane daw malaayka yër ma ne teew roowu juba waa ji texe moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yamutu lmaru ala ma aasha alayhi wa yuxsaru ala ma maata alayhi nit ki ci ni mu dunde rek na lay dee maanaam état bi xolam nekk mu dee ca ca noonu lay dee teel fekkee ne xol bi dafa sol mu mu tilim mu mu ñuul mu diis mu tàng mu xeeñ ba muy dee mu tax deewu bette ñu bari ko ragal ndax doo doo mu fekk ci sa xol ndax nit ki dana am yéene yi def yoo xam ne ak mooy la te jot koo def diggante ci yéene jooju not ci xolam fekk loolu seytaane lëndëmal xolam mu faatu ci loolu ca loolu lañ koy ñu koy xam ne buy jeex ci dispense noonu la ca loolu lay naka noonu safaan loolu itam mu dee ci melo rafet wala jëfam yu rafet bari ba ëpp doole yu ñaaw yi mu dee ci melo yow noonu lay defee jëm xiyam mu jëm ci mbiru taxasul di màggal xam naa ne jaam yi suñu borom tànnoon ca ëllëg indi leen ci àdduna def leen ñu dugg ci suñu jeexit ànd ak ñoom roy gis leen rek tono la suñu moom na jaam ñoo xam ne xool leen rek ak jaamu yàlla rek ak ñoo xam ne toog ci sa bërëb fexe di dem ci ñoom nga seet nañu farloo woon ak nañ daan jëfe nga sopp loola rek yàlla bu rëy la yoo xam ne xëy na mënuloo julli julli ko ñu am mën loo ko ko ñu am ndax julli du topp ci njatem ndax julli baatin ak baatin la sa laari ak sa ngay jox ba di julli contraire rek nekk suñu borom ci bëgg ne allah akbar ba bi nga naan asalaamu aleykum moomuloo sa bëri wala too xool lu jëm ci aduna moomuloo sa noppi wala too déglu lu bokk ci aduna sa xel bi moomuloo ko wala jëm ci aduna kon sukkuraat fàttaliku yooyu mu noot ci xolam bu kàbbaree suy julli dana mën a teewlu ñu ne nag li ñu tax a toog tey moo di màggal màggal lan mooy màggal waxtaan nañ ko ay yoon bi laa daan jóge Sénégal waa rajo bi ñaar dañ ma ba jékki-jékki rek téléphoné nañ ma ay yoon may ma di leen làqu daal di leen làq benn ma jékki-jékki ñu ngi àgg si mënatuma daw mënatuma dara waxtaan nañ keneen ku dégg kase def wala nga dégg wala nga ko mën a dégg maanaam lan mooy màggal ak na mu ci lislaam ak ñu ko njëkk a def ndax lu ñu sos la wala ci lislaam la bokk waxtaane woon nañ ko waxtaane woon itam nañ koy defee ak ko ak la tax ñu jàppale ko gaa yi yàlla yi ca teew ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teew ci màggalu juddu doomu aadama koo xam ne ku yàlla gërëm la ak saxaaba yi ak yi ak malaayika yi màggalu demu Sëriñ Tuubaa bi nag dafa bokk ci gannaaw bu juddu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéyee màggali jaww yi gën a rëy li gën a rëy ndax da cee aju texe lu ko xamul nu ñu toll fii ba nga taal di ne guddi gi maanaam li mu sabab mu di màggal dem bi Sëriñ Tuubaa dem ci li wax teggin waxoon naa ko beneen waxin ci weesu dama ko bëgg jox ci mel ni saa rek moo xam ne ci biir ñu boppam la jógee nee bi mu gisee ci jamono noonu mu fekkoon ci l'islam lu baax yi ndigal yi ak tere yi bu dikkee jamono mel noonu mu dikk aw mel woo xam ne mu digul mel kaw bi mu di ci waxtu ndawam borom baal na ñëpp am yaakaar ci moom te mu wóor ko ne matal na lii doon soxla yi ci sàkku ci xam-xam ci maanaam ci ragal yàlla ci farlu ci bëgg yàlla ba yëpp jeex waaye li dugg dëgg li mën a tax mu faru aadee jaan ñi mën leen a fexeel mën leen a ramu ëllëg amagu ko mu misaale ko ne wax nañ ko ci ay waxtaan yi waxtaan mu ne dama meloon ne jamono yi ma yóbbu ci géej gi réew moo xam ne xiif dafa am boo xam ne kenn amul benn pepp dugub boo lekk ñu gis ko benn waay boo xam ne ñoo fi tuddee dàgga moo di ay saax li mu daree defar ko ba mu mag ba ku ko séen dafa ne fees na ak dugub waaye ñoom ñëpp yenu seen i saako seen i paan seen i ndab ñëw tëdd ci wet sàq yi ne kii de borom sàq yi su ubbee sàqal rek ñun ñëpp daan am lu ñu lekk te fekk na sàq yi dara lekk ñu lekk léegi mu ñëw ci géej gi noonu la ñu ñu ngi leen di gën a tiré bu ñuy sàqee ba tax ñu fees bu buy ëpp sàqee ba ëpp ya fees ñu wër di jël ci àll bi ñu war naan ñëw na fii nan la ko tukki moom mën a mayal la xam ne nekk fekk dafa dikkaale ci adduna ak bëgg yàlla na sëkk ak xam ko ak farlo ci jaamu ko mu daan solo solo yu bokk rek nit ñi di solo daan doxale doxale yu bokk rek nit xam di ko doxale

ba nga jaaree adduna loo fi liggéey moo fi def ngërëmal yàlla ak décoration yi ngeen mu bàyyi loolu ci xel fu mu toll. daf daan toll li ñu daan wax man ña xusaaba lañ ko tuddee woon day xaw ne day jaaraat yu tàng yooyu yu ñagas yooyu xam ne day na day jam yaram ku daan kaalaw am na benn góor yu ñu wax ak seen sama lu faal njaaxal daan na waxtaan ci mbir mi ne ku jege woon dund la. خمسة بالعمليات المباح والمباح ويقضي من تحتهم لأن جسنا بيع من يال من جدا عملان تستدل أي خرم يال من يحتل من طريق إليه بريك مفتن تنا صلنا توتي كتب لكن بوجو boo ko féetee kanam da ngay def ni sa dëkk waaye soo ko féetee gannaaw da ngay xam ne dëkk mu ne nit la woon ku xam ne rëyul tuutiwul sëñ Moussa dama ko wax réew yi tuuti moom tàggat bi beneen bi bu daan day ko kekkoo daan saxoo moom beneen wax ko di fanaa yaw yaa nga ko daan féete wàllu ndey yor mu man laaj ko ndax daan takk gàllaaj mu ni daamu gis mu takk téere wala ndongo rek waaye am na loo xam ne daan teg ci boppam su ko ca bopp neen fab morso teg ko ci yeew ko fii la ak ci kaala bi njëkk ba dara ci feeñ nga xamul kaala la alquran la xamul dugal loolu moom la daal jiital soo ko def ñaareelu kaala bi ba ci ñetteel la nga tëmbal ko ñeneen ñetteelu kaala bi dafa daan gudd ba wàcc mu la ak ci njëgam dafa daan yor yàq daan lu nekk da daan sol foo ko fekk mu mel ne koo xam ne na pour jóg dox dem dafa daan nekk dëkk bi bëri topp àll bi dem di dem di dem di waaxu waaxu mu tàng ba yàgg mu ne tàkkat daal yëngu ci jiwu keneen bu ñu ko laajee mooy nga xam bu ma génnee day am lu may woo te ma xam fu mu féete ba ma dem ba defe ne maa ngi fi jëm ba déggaat daal di feneen daan wax euh, tasawuf xam am na bu bari léegi te ko daal dañuy ko xamuñu fu mu féete loola di leen woo seen xol di wuyu loolu seen nopp di ko dégg seen xel di ko du xam fu mu du xam nañ koy ak mu yeneen yu bari yu demee noonu yoo xam ne tax na mu teqali ko ak nit ñi ba mënatu la jaxasoo ñoom bokkatu loolu ak ñoom dara. dafa ni ma waxee rek dafa daan laxatu ba nga xam ne kooku rek mu mel ne que suñu ne jóg dem tukkiw sooy. ndax dong noonu la fa lool ci njàngam noonu la fa lool ci jaamu yàlla noonu la teqali ko ak nit ñi boo xam ne toogee mu dem toogee fële. nekk ci alwaan wala mu nekk di xalaat te fas yéene dem waaye nit gis loolu ci moom mu wute nit ñi ñu tàmbali ko sopp di ko xeñtu di ñëw di toog moom ko defee te bugg ci dara ndax loolu la koy gàllankoor mu daal yàgg ci àll bi bu yàggee ba yàgg ñu di ko wër di ko wër. ba gis ko ñu ko indee waxtaan nañ ko yoon fóot yére yi raxas bopp bi bàyyiwaat ko mu dellu. xam naa ne wax nañ ne am na benn dëkk bu daal bu ñëwoon àll àll bi daal boole xam ne du mu ngi ci xam ne loolu ak doomu boobu ak génn boobu mu jur yëpp mënul tax aadama fay maanaam lu mu bëgg mu am ko mu ñaan ak suñu yoonu géej gi maanaam ba mu koy ñaan maanaam précisé mu ne tukki ci géej gi wala ne dara du dox diggante ba borom kenn du ko lakkal kenn du ko seet du ko wëri mu wéet moom dong mën a tàkku li muy tàkku ko ay du soxla nga gis jaara te bi la tax suñu borom tànn ba def ko xaalis moo def ko tax ah, la tax mu nekk koo xam ne dafa daal di mu def ñun ñëpp li mu ngi ci géej bu demee du tuuraal ko kese waaye ay napp da ngeen dégg ñu naan suratu naas maanaam da ngay jëyee te tawatul balaaya suratu laawaani la am ci aaya yan bi ñëwoon xutbu yi ak labdaan yi te attanuñ ko moo ko xam raw gaaya da ngay jëyee te tawatul balaaya suratu laawaani la am ci aaya mu di ñaari téeméer ñett ak juróom-ñett fukk ak juróom suuratul Baqara suuratul Baqara suuratul Baqara nga xam sama sama mën a aaya ci ay nattu bu ñu la nettalee nattu yooyu yëpp par benn benn bu ci nekk day day fitna te du tawat du wow du dox gerte gannaawam du tëdd nelaw du toog waxtaan du def dara wala ah la première ñett yi mu jaayante woon ak boromam ak yem ci weesaat gannaaw itam mu ko yooyu ak mu tëba yooyu ak tumurante bi du sax kuy wax lan yi mu nam muy wolof na nett li boobu mu ngi ci waaw natim mais benn bis duñ ko dee jaxaseel ndax bëgg koo gën a naxarale ak soldat yi benn bis benn officier gis ne ku soxla euh, engrais la ak këyit ndax du ñu di tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di bind di toog di ko butéelu engrais waaye nag nee na lu ma di man sama xel bi tax ma aj ko fii wala ma yaakaar ko day na nag digul ma ko mu am benn waaye bu même boobu si ko kii boobu ko digloo dig ko leneen dig ko leneen leneen jox ko ko nag kooku di xuloo moom waaye nee na lan ñu wax ni ñuy xuloo rek tax na maanaam xuloo bi intéressé ko bu di ko déglu man ñu ngi xuloo ci bëccëg ba ci ngoor peut-être que ñu ko xuloo waaye moom wax li ñuy wax seetlu waaye ni ma gëj a déggee wax baati waram tey waram góor bi ne ma loolu sax wér bi la newoon xam naa loolu sax daanaka ci natt daañu ko natt ci noonu ko wax wala ci xaw a wécc loolu ban ban ndax gis ngeen ne béréb boobu daan toog ci jaamu yàlla bu ñu nekkee ci géej gi. di ko béréb bi xamee sax béréb bi ci wut ci béréb bi rek xalam daan wécc nekk yëg sax bi ko béréb bi sax bi suñu borom natt ko ci sotti ko nangu junni ne lan saa ni xam ko di ko natt te sënul sax sënul wax ko sënul nawet. xam nga kon loolu suñu borom continué wu moom it di ko teg ay musiba ay fitna ay coono boo dee mu tuurante te du tax mu tawat wala mu sonn ba wàññi ci li mu daan def ci jaamu yàlla dara bu ñu toppee maanaam li mu nekkee ca ëjjul ba dana guddi dañ ci bëgg rek yow dana dana fekkoon indi li indi ci baatin ak li indi ci zahir maanaam tukki boobu mu tukki woon li mu indi li mu ko ci baatin mooy li mu lépp mu am ko jumeelati jullu ñaari moom tamit tamit ci ngar gi daane ci laal ne ci zaahir bi mu indi lu am am solo la ndax dafa libéré dafa libéré colonie war ak pour waa jullit ak pour jullit te nit moom dafa leen jox ndam dafa leen sigil dafa dëgëral seen ngëm dafa dëgëral ni mu waxee ci mataal ci ginnaaw wala mu yaa adilla tasxiixi li sidqihi wa diinihi saxiix yàlla mooy indi diine waaye wali ñooy wan nit ñi ñu leen diine di dëgg la ndax képp koo xam ne gis nga doxal ni mu sëñ Tuubaa ak fi mu jaar ak ni mu mel ak li mu fi dootu am sikki sàkk ci ne diine lislaam mooy diine dëgg wax mooy wala yaa ëllëg tasxiixi li fi dëkk bi ba diine bi saxi kon képp koo xam ne xam nga sëñ Tuubaa te gëm nga ko dootu am sikki sàkk ci ne lislaam dong mooy diine ci jëf ndax dafa taxawu lislaam taxaw boo xam ne daante agi du dee ci ngam bi taxawu alquran taxaw boo xam ne alquran mësul am ko taxaw nga ne daañu ko waxtaane Cheikh Sadio Mbow radiyallahu taala moom ñu am gis xam yàlla xam yeneen liggéey ba am ngërëmal boromam bu seen tubaab liggéey ci géej gi dafa nekkoon diine mu am ki mu am ci gën gën a gën a taxawu diine ji di sababu texe hani an ñu def diine xale yi it dañuy xam daal di tuumal ñu nga xam ne dafa ñu ko neex bu ñaareelu ëpp bi daal di wax saanee loolu nga xam yoon loolu kii la <laughs> dañ ko def foofu waaye dañ ko wax. ak wóolu boo xam ne dara dootu mën a tiital dara dootu mën a xamal dara dootu mën a jaaxal dara mën a taxit ñu nga dëkk ko ci la jublu. kàttan benn nit rek te kàttan yi moo di nekk ak gànnaayam mu di ngëm ak bëgg yàlla def yorul benn gànnaay yorul benn jumtuwaay yorul benn matériel gisul kenn ku ko taxaw wala ku ko taxawee wala ko dimbali songoo ak borom doole yi toll ne kàttanu maanaam solo solo na ne kii soxla ñoom ba boobu ko dellu lépp lu ñu doon ci moom bennam mu nekk fukk wala ñu dana dund yokk lépp mbooloo ñu gën a bari li leen di gën a tuddee lépp yokk te mënatuñ loolu bokk na ci meññeet yi tukki bi ñu ko tuur kon tukki bi ay ay dëkk yu bari moo nekk du xam ne duñ ko dee jàng du benn conférence du ko jeexal ñaar du ko jeexal ñett du ko jeexal mën nañ ca nekk wax ndax euh, ñaari nit ñu bari ñoo xam ne xamante ni ñu woon bokku ñoon suñu dëkk diggaale ñu dara amul dara lu ñu mu boole leen ba ñu nekk benn xol ju bëri bii nii la ci sallallahu alayhi wa sallam am na gaa yoo xam ne bu ñu ay yeneen du ñu ay malaayika waaye yeneen bi am malaayika dañ leen di ñee di ma soir ñu laaj ko yoonu ku nekk mu ne ay ñu càqal ko ku ñu dëkk ñu fa yow tay ak tay wala di ngëm tay leen kon ñoom nit mën na nekk exemple loolu nga xam ne itam noonu la dëgëre ñu gëm ji yëkkati maanaam tati nit ku ñëw soppante ci taalibe yi ak peuple bi ak ñi ci gannaawam la dese daañu féete kaw ba ku leen di xool da lay ndax dañu am koo xam ne xamuñu fan la am boo seetee taalibe ba taalibe ji nag xam ne booba révolution yii intellectuel yi di prôné di ko waxtaane ba mu koy wax di yëkkati bàyyi leen nit ñëw wala ne bul ñu muy tax nga defe ne yées nga ko yara wala bul mujj ñëw ci jamono tax nga defe ne ji nga ji ci jamono te def ay jamono yi noonu dem wala mel noonu mën ko booba xel xalaate du loolu moom dong ci nit ñi moom di loolu فليس يوجد ثواب الجسم كفاحة الفتى والتسليم ما هو لا تخصص فضل رجل قد علا به تقدم فحسة الهلاك فالفضل قد يبدو امام الوجه والفضل للوالد لا للقلب فلا تنصح حين رضيت تزدري نص حديث أمتك المطلق وربما قد تكاثر من أخرى ما أراد أن يقبله وأطلق قل دودي لم نانيتي تكتبه بل أدل أن يخمنكم فاتل فوق وانا خلوني اليوم الدرقي أكبر dañuy teenee nit dana xiyaar ci kanam yàlla bis bu ñëw ak lan la yóbbul ci jaam yàlla ak la yóbbul ci ak moy waxam naa ne xéewal bu la su borom xéewal te bis bii jullit bu nekk war fexe mu am lu mu la yóbbul bu ëllëgee bokk cee béy kon lu war seen nit bon lan mooy sunu wàll ci bis boobu lan mooy sunu wàll ci tukki boobu ak tukki bi moom suñu yàlla ak yonent bi kenn dimbali ko kenn fekk ko ca kenn taxawu kenn defal ko ca dara dogu boppam ak ngëm boppam ak takku boppam ak fit boppam ak ragal yàlla boppam ak xam yàlla boppam gannaaw yàlla ak yonent bi ko taxaw woon waaye nag indi ko ay duruus ngeen war a jàng te war nga koo sàggane ndax képp koo xam ne am nga moom àq am nga ci yow àq képp ku am ci yow àq nga def moom àq moom nag taalibe yi amul ci ñoom benn àq ndax defal na leen lu ëpp àq ñi ñoom nag ñoo def ñoo ko amee ay xaq yoo xam ne mënuñu koo fay waaye mën nañ cee def kenn waa nañ cee def kenn cee kàttan fay àqam muy tàmbalee ci lu mu bëggoon ak lu mu fonkoon nga fonk ko lu mu diglee nga def ko lu mu tere nga bàyyi ko ndax lu mu diglee mooy li yàlla digle rek lu mu tere mooy waaye yàlla ak yonentam dañuy bëmbëstalal duñu def tafsir yi maanaam détails yi gaa yi ñuy yebal ñu ñëw gannaaw lislaam di dëgëral diine bi ñu waxe woon nekk wala euh, suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne da ngay yónnee ci bopp bépp téeméeru ak waa yoo xam ne day ñëw beesal diine ji moom la ñu tuddee moom la ñu tuddee dañ ci ay conférence mujaddid def nañu ñetti conférence am ñu mujaddid dafa tax ni kon du soxla ni ah, la la mujaddid waaw bi nga xam ne moom kon di ko defee yëpp biral na maanaam saxal na lislaam ci xol yi réew mi ak ci xol yi yi ko wër waxtaane ganaar ak naa ganaar yi ak ni naar xeer nit ñuul ak ni ah, ak li mu waxoon ne ba mu ak bi sëñ bi na ko benn bii wala nasaraan ak ne kon ne sax nañ ci islam ba ko am na ñu teel kon téeméeri atam bu dikkee war nañ cee ko waajal ci biir ak ci biti ndax koo xam ne saxal na lislaam ci réew mi ba dugg incha allah am na suñu cër ñun tam ci coono boobu de ay murit mooy ñu meloo meloo bëgg meloo bëgg ñu meloo ko xam nga ne seen biir waxuma particularité diw sàngam li mu wax ak yow nga xam wala kuréel sàngam la mu waxante ñoo xam ne ñoo naa ko waaye liñ bëgg ñëpp nekk te sax ci mooy li mu bind te xamoon na dina ci te du li mu bind mat na toppatoo mat na xam mat na seet Sëriñ Tuubaa képp kuy askan ci moom te fonk loolu diine tooñ nga ko waaye sa bopp nga tooñ koo xam ne itam ci sa wér am nga ci càggante bu tax lu mën a wax am murid dara tooñ nga sa bopp tooñ nga murid yi tooñ na yoonu muy tooñ na Sëriñ Tuubaa nan la ñuy def bopp ba nekk jullit dëgg nekk nag taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñu ngi yaroon bopp ñu ko wëroon ñoom dañoo am lislaam ba fam mën a yor fam mën a yor ñu amul taalibe fam mën a yor boole ñaar yooyu nag mooy li war ndax ak muy ci biir kaw la lislaam la nekk bu sa lislaam matul da ngay am te Sëriñ Tuubaa li mu wax ci lislaam lépp xam nga moom fonkoon na julli ba kàttal ko wax fu mu toll ba julli fu kenn ñu ñëw la jullee julli koo xam ne xëy na kenn dootu ko julli ba ne wala xeyaal ak julli koo xam ne mënta yoo xam fu ma mën a julli fonk alquran bu nga xam ne alquran rek leen kaani rek leen nangoo ñaari loxoom nga xam ne ku mokkal alquran mu xam ne yow ñu mokkal alquran bu wóor ngay nekk lépp lu mu yëkkati joxe daf lay amee sa lépp boo bindee kaani indi lu ne mu defal ndax moom nee na suñu borom ko moom la alquran nan la ko alquran tam ñu ko yeedu mais suñu borom li ma firile islam li alif bi mooy aw rax su kitaaba doon loo naa la téere yi nga doon ko ci yàlla bi sama yàlla sallama laaj bi mooy laa xam su kitaaba sax naa la maanaam téere bi maanaam li nëbb yi nit ñi xamul sax naa la ko nga xam ko wax na ko de nag naa gaa yéen mu jiri bil quran yi xataa xadam su moo di daram ani suñu borom bi wàcce alquran déey na ma maanaa yi ba nga xam ne maa ngi naan waaye képp ku maa min ni mooy mallaktuka alkitaab moo noon naa la alquran na alquran man dañu adal sëñ Tuubaa waaw bu ne bu ma jëlee askanoo sëñ Tuubaa te fonk alquran du ma ko jàng loolu kon nanu nal ku ko def dana la mere ndax nee na alal moom loo nañ ma ko sa alal di nga moom fonk ko ba ñu moom loola ko ndax xam fonk gi ko fonk ak fonk ko teg man na ko leen tàggu ba ma ko jullee ci loolu لسان لا نسيح كارم واحد هني أن يبدين الغريب الذي قدر يتيه صورة من فوق على أن الإسلام مش يجيته julli ne mooy ahdaru ibadat mooy jaamu bi gën a màgg ci jaamu yi ndax julli moo boole jaam bi ak suñu borom tabaraka wa taala directement dara doxul ci diggante bi julli suñ ko joxee yonente bi salaam ci naa dina sax àgg ko mënu ko àgg dégg ko ndax julli la suñu borom gën a fonk ci lépp moo tax mu yóbbu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey xaaral yàlla ko ci nga xam ne jumu di ne pays ba tey doomu aadama dafa yëpp ak yëpp ak tiit ba yaram di lox ba ñëwu la dugg suñu borom ngir dalal ngir mu mën a dugg mu ne mu di waxe baax mel ne baax si na am mu gën a mu dégg ko mu nekk li ko xëy yaa Muhammad inna rabaka yusalli Muhammad taxawal sa borom ngay julli inna laahu wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi mooy maanaam julli suñu borom julli ci yonent bi sallallahu mooy dalal ko dalal xolam teewal xelam ñawal ay bëti bëti xolam ba mu mën a gis tabaraka wa gisi woo xam ne كان الموت كوكوي كان دوت كوكوي كان نور كوكوي لما دو يعني دولانا من رأيت رأيت ربي على صورة الشاب دين جسنا أصلا برم تبارك وتعالى في ملو ما قلب جوه برافق جوه خمسة يسمعون تبارك وتعالى ينسي على موسى الجبور ينسي على إبراهيم كم كان ينتحب من محمد صلى الله عليه وسلم نعم لأبو بشيء صلى الله عليه وسلم بقصي يسمع على صلى الله عليه وسلم تحت جنة برام هذول ديدي نورا مية ضعيف سيدنا فلان أبعد أبعد سيدنا سبعة من يوها وإثناء نعم نعم نعم سيدنا أبي وحيد بقر موي كان سيدنا لا واجه سبعة شوية سيدنا عائشة رضي الله عنها كدري وعلا كدري يعلا كتقوى رجال كن كن بعض صقلا جبل صقوا يوم جبل صقوا صقوا واي جبل لا يوم تبي وقت وان كنا كم جبل كم بتزاهي دخل وهو لطيف الخبير mu dëgg foofu nag mu xam ne foofu la téere bi toll dañ maanaam muuram mu ne ko gisuma ko maanaam su ko sama bëggee ci dund Abdoulaye bin Abbas mi mu xam ne nee na mooy xibru lu mën mooy fóoree xeet bi mu ne ko gis naa ko maanaam ci sama bëgg xol laa ko gisee te gisu xol moo gën a leer gis bët égyptiens yi dañoo jëm jëm jëm jëm nekk foofu ndax téere boobu xalifa nekk bind bi ci nekk dañuy wax Cheikh Ahmed Tidiane bi mu wax ne ndax daf koo leeral bu ne def ko Cheikh Moussa Dia wala daa ko waxee ne sayidina ñi ñi xam ne yoon bi sallallahu alayhi wasallam gis na suñu borom waaye ñi nga xam ne mënuñoo attan loolu daf leen wax ne gisuma gisuma ko ñi ko mën a attan mën a xam fi mu koy teg ñu ne leen gis naa ko leeral nag li ma ci teg dégg égyptien bi nag bi ñuy ñëw teel mu daal ne hadihi zallatun azimat min cheikh ahmad tijani li annahu kayfa yaqulu nabi sallallahu alayhi wasallam la fima huwa haqq mu ne ma hada illa tanaqum

julli xam nga kon julli bokk na ci suñu borom gën a topp bokk na ci ñu gën a fonk bokk na ci yonent bi sallallahu gën a fonk gën ko topp nga xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na wax bu ko waxee kooku maa xaaral ñu yi ak suñu borom bëgg moo ko dee fii sax ko li gën a gudd tey gudd te bëgguma tàmbali sa affaire boo ko mënuloo leneen ndax ci am ne nit ñi xam fu ñu koy def sa lu ñu war ñu koy ak julli dëgg alors bu dee trop am na suñu boo xam ne boo ko déggee xam ne wax bu xóot bu am maana la bu teg dal bu dal bu ne kon suñu cër mooy lu sëñ bi fonkoon ñu koy soxla ndax ko waral ci jaamu yàlla donte aji toog bi wala aji raam bi mu la jot naa doon ñu ndaw jot ñu ko borom xam wax ndax yéen a ngi ko dafa dañuy xool parce que daal la ko tuddee tuddee ci ko ñu xatal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a roy alquran moo wax ne am ngeen royukaay bu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu faral di gën a ci xam dara jéem a ubbi suñu bëri xol jéem a doon ci leeram comme ñu ci attal da naan mënuloo jaamu yàlla Sëriñ nga jaamu yàlla bu ñu jéem laaj seytaane la seytaane doomu mooy làkk boobu su kon am xel ak tey ak xam waxine bokk na ci jihaad nga dégg ñu ne baat bu teey maanaam wax bu rafet taxaw na taxawaayu sa yan na ñu waaye ne فقول له قولا لن يعده تدبر او يخشى ثم فزوج نبي من موسى اكهارون في فرعون ابي فرعون لتاكل بيت دفن من من الله عز وجل وحيد ونوي baaxoo jël de ragal yàlla waaye dinañ ko waxi waxi moo xam waxi mu gudd la wala waxi mu fulla fayda wala waxi mu gàtt wala waxi mu ñëw bu ñu ko dee ci wax bu ko dee ndax dëgg la woon tey tey am na tam wala mu naan exposé bu war a doy am na loo xam ne ay laaj ñoom ñu gën a important da gën a élaboré wala ñu ay laaj ñu ko Ahmed Ibrahim buñ ko doon déglu ñeent dégg na seen tubaab. yaa ngi doon ñëpp tam ndax bañ ay xew-xew yu dal ci kaw ndax bu ko daal bi nga xamee mu ngi tax bind mooy sori dañ ko daal jéeréer te ñëwee ba xamaloon ngir suturaal ko seen tubaab boo ko santaane woon moo santaane woon ñu suturaal ko moo santaane woon ñu bàyyi ko bañ ko dañ koy dàpp di ko dàpp ngir rey ko wala gis naa ko moo ne nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko gannaaw yàlla loola sabab ñu ko suñuy jumb kon yaakaar du laata la yaakaar. waaw def ñu diggante ma sëñ Touba. kon su fekkee Fall sëñ Touba sëñ Ba Fall mu ko nar a yaaroo xolam la moo tax mu gaaw a xam sëñ Touba. am na yoo xam ne mënuñu see àgg ak yéen yàlla xam na ko mënuñu see àgg ak yéen ndax du ngeen xam xamu te baax dama doon day dem day doon lu naqaree leeral ci suñu xel xam nga Deelal deelal almini bu yow ci dëkk la moom lépp la woon am na léegi waa tawaru ko am na ñeent ak sa dëkk ko mu ne ñëpp lay xam ne képp koo xam ne kii xam ne nga xam xam ne tegee cere ak tegoo ci sa kaw boo xam ne nag leer dana la ne suñu borom man de naw ma ayuba yéemu ko ndax natt woo ko natt bu tax mu xam ndax ngëmam ji dëgg la ci moom mën a dee ndax ñàkkul dafa am am dana defar xolu nit euh, ba mu mën a dem wala waaye bu ñàkkoon dana ñàkki wala mu wàññi jaam yàlla wala du sawar suñu borom ko may na la nga dem yàq alal di daal loo xam ne dafa ànd ak ak nga toogee ñëw lay jur gépp daaneel kër yi def yàq lépp ay yow nag daal di gën a muñ gën a gën a kontaan xam ne suñu borom fàttewu ko mu koy nattu ndax suñu borom nattu yi daf ko réservé ñu ko bëgg te bañ bañ la iblis toog ko benn dëmm ci ko yow nag sa borom lii la la def ki ngay wax ne mooy sa borom ki ne moom bëgg la def nga lu bon a bon a bon yow daal li nga amoon lépp yàq na ko mu ne ko jaay xanaa xam nga li ma di jaay moo gën bi ban dama xarit lool mu def sama alal bi bu ma bàyyi woon rek dañuy tiit daa war a yëg ne dama yoxal rek ba ma mu daal di dellu su boobu nag dama fekk ayo ko mu bañ ko ne ah moom kay doy waar ne ko waaw waaye nag mbir mi am na yow di yàlla mu ne ko may naa la tàkk nga dem jëfandiku ci yaramam mu di ko di ëpp yaram bi di ci ëpp tooke muy ney di fut di bedd ba nga xam ne xeet gi nit ñi mën a di ko supporté ñu yor ko ba ca àll ba tànn yoon. fu mu toll di sant boromam xelam mosu la jug benn yoon xanaa xëy na dina gudd fi nga xam ne foofu la soxla sa euh, guddee ji ba ngeen jaay ko ak yooyu yëpp dina gudd. maanaam daal ayuba jóge na ci balaa boobu juróom-ñaari at raxma moo doon sox sox moo doon soxnaam mu mucc ci ba delluwaat ci mborom ful alal dam ko joxoon jox ko wér kuraaw dam ko joxoon mu mel nam meloon ci benn bu xolam changé du toll gën gën a gudd xëy na génn na kon ci natt boobu dundaat bi ñaareel bi nag yàlla yow yàlla lépp alayhi salaatu wasalaam te ni ñooyu la nekkoon war a jël waaw moom laa bëgg a wax di leen woo di leen yàlla ñu bañ mu di leen xub naa leen suñu borom dana wàcc ci yéen mbugal mu yàgg mbugal wàcc ñu naan ko xam nga suñu borom moom moom xaritam daf koy xool noonu la daf di xool xaram yow li ngay wax ana kañ la ñëw mbugal ñu nit rek waaye kañ la yow daal la ngay wax rek waaye dox mu gàddoo ba mu juum leen waxtu sàmm bu jotee da ngay ba lay jot wala bu jotee da ngay jël mbugal waxtu wa jot passé mbugal amul ñu ngi ko naqaral ba xajatu ko nga daal di génn dëkk ba daal di dugg ci benn gaal gaalu rox di dem bu demee nag gaal gi ngelaw li rëdd gi gaal gi bëgg a tuux am benn laaj bi ca nekkoon xam ngeen ni nit wuuteeg bànneexam ak def xalaat tafakur même bu nekkul ci islam euh, loolu dana ko won ay ay ay ki yu nit ñi xaw lu ci yu ñëwagul xam ngeen ne moom loolu seytaane mën na ko am na nit ñu ko yàlla bindee seet giskat yi seetkat yi loolu bokkul ak baax dara nit mën na gis ñëwagu ci moom bi ko xool te mu doon nitu yàlla doon nit baax ci laaj boobu bi nga xamee ne am na jaam boo xam ne day daw sangam moo nekk ci gaal gi xamuñu ko dañ ko tegoo ay bant bu bant bi daal moom la ñu ko ndax waa gaal bi mucc moo que euh, xam nga fa kaay a xaal ya ñu daal di mu daal ci kaw minute bi daal di koy sóor ci géej gi laata ñëw ne ko tëneefoon na daal di noor ba fa ba ca foofu mu tëdd fa ñu nut boole lëndamaayu géej gi lëndamaayu guddi gi lëndamaayu biiru jën yi bi nga xamee ne rek sàbbaana laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu mina zalimin la suñu borom sant jën wi mu génn ba ci captral kii bi ñu dëkk ko bu ñu ko dëkkee mu tëdd foofu feebar ndax ni mu nekkee woon ci biiru jën bi suñu borom daal di saxal benn garab bu mel ne naaje naaje yi di law xob yi muur ko ba muur jant bi ba nga xam ne tàngaay yi jant bi du ko lakk bi nga xam ne ne toog na ba ximali fu wér taxaw mu ngi mu ngi sabal suñu borom mu ngi sabal suñu borom xur yi ak montagne yi yëpp di ko sabal di ko di ko tontu suñu borom naan ko la bay yaay yu di ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne ka anni yunus ibni mata yunabbi aw kama qaala tabaraka wa taala fa yaqul lahu فكتب الأودية ولا والجبال فيقول له تعالى لبيك يا يونس لبيك يا يونس ثم ننسى لبيك يا يونس لبيك يا يونس Yunus alayhi salaatu wa salaam bokk na ci ñu am ngërëm suñu borom ci yoon bi xaw ma nekkoon na xalifa wala de xam na ci yoon bi nekkoon xalifa ak ñoo am ne nekk nañu ay xalifa Yunus kon li waraloon ci ni ko mu arrêté yi maanaam historien yi ni ko nekkalee loolu moo doon sababu ñu sànni ko ci géej gi ba jëm wi war ko loolu moo ko. waaw. mu Musa. nan la ko mën a nekk la ko mën a. ba jël ba jël Musa alayhi salaam ci li ñuy wax ne ku ragaloon dee rek ku ragaloon na ragal dee. am na sax ci bindkat yi ak jàngkat ñu wax naan Musa ko ragaloon ne déedéet dañu xamul ndax ñu ngi liggéey naan Musa ko ragaloon ci bu ko suñu ne sànni yëpp yi nga am yëpp mu sànni ko mu nekk jaan jaan jël ko mu daw. ak bi nga xam ne suñu borom mu ngi ko yónnee ci Firawna te mu xaw a ragal ne rayoon naa ko bakkan te dama ragal bu ma demee ci ba boole naag aaduna ndax man sama leneen séddul ndax xalu xalu xalu xalu lim saxoon ba mu lakk lan ñoom tax lan ñoom séddul mu ne xëy na dina xam bu baax lu may li may wax bu boole naag aaduna yu mel noonu la euh, kooku dëgg da ngay Moussa ko wala déedéet Moussa bi ñëwoon la dafa xamoon yàlla nag xam koo xam ne xam ne suñu borom dana la nattu toog la fi jël jaarale ci leneen te fekk mbirum suñu borom la loolu nag xam bu mu xam yàlla moo tax bi nga xamee ne sànni na yàq mu nekk jaay wuti ko dawul ngir jaay bi dafa xam ne jëli suñu borom la kàtt na man xamul ci nam ci moom te war naa wane ak waroon mbóor suñu mu dal di ko def ko dafa ne jaay bu tekkiwul dara bu bu ñàkk la ci juróom bi nga nag euh, Moussa dafa ragal woon nag dee bu mu ñaanee suñu borom ñaan ma bañ a dee mu ne ko loolu mënul nekk ñu ngi ko ñaanalee fan mu gudd mu ne ko da ngay fekk yëpp kuuy xam nga xisar yooyu am na yoo xam ne israiliyaat la am na yoo xam ne yu dëgg la am na ci yoo xam ne ay hadis la nga dikk ci yëpp kuuy nga fekk sa ñaari loxo ci wetu genn bi nga puus ba ci bopp bi karaw bi sa loxo laal nga dund ko mu xeex ko bi nga xamee ne xeex na ko ndax suñu borom namul woon mu dund loolu. ah ba mu ko njëkkoon xàppal nga xam ne dafa taxawul foofu ah ba jàpp suñu borom yabal malak moo di ñëwee euh, yonent yàlla Isa mbéj ko mu daw. wax na suñu borom ne ko Moussa nit ku soxal la nit ku tal la dégg nga te day fab nuur nu boo di te nu boo moo malak yee doole doxale ko seen digg moom daal li ñu mën a ngàddal ñu ko taatee suñu borom ñu ne nax leen ko ñu dem. ci gas bàmmeel boo xam ne ba lu nekk ci xeetu rafet lañ ko def yow daal moo kaa romb daal di ñee ci moom bàmmeel mu ne waaw rek moom bàmmeel bi yow ci daal xeet bi suñu borom fonk la mu ne taxal na bàmmeel bi ndax mën naa koo lakk mu toll ñu ne mooy yow tolloo fekk mën naa koo lakk ñu ne waaw naka mu koy dëgg suñu borom root ci moom bi ma laaj day root ci moom ñu ne سبحان ربك رب العزة أما يصفون من سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأعلم أن لا إله إلا الله لو أن سؤال كم من أفرام وكيف لا نقول كوتيني ما أفرام جملة وأنا بعد ذلك ما أنا يليك لكم معه القرآن ظهر وقطنا حديث هنا ما من حرف من حروف القرآن إلا ولها ظهر وبطن بل من ولد بطن بطن إلى سبعة أبطن dañuy wax ne juróom ñaar ci léeg laa seen seen lépp dañuy wax juróom ñaar dugg ci lu bare bare rek xam ne ëpp na juróom ñaar ni ñu waxee asamaa waa sabo asamaa ni juróom ñaar rek asamaa ni lu bare bare lu amul app la waaye tuddee ko juróom ñaar ngeen wane ak bari ak bari la kon ak ko an ni nga xamee ne Seydina Alioune radiyallahu taala wax na ne maanaa yi faatiha ci kitaab rek su ma amoon ndigal mën naa cee mu commandé mën naa cee firi téere yu diis ñeent fukki gëléem te amul lenn loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma ko jéem a indi ci des ci xeeti xam-xam lu dul su moom moo jox ab jaamu diis muy Ali ibn Talib radiyallahu anhu ak dégg ci alquran xam nga kon ñi nga xam ne xam nañu alquran xam nañ ci lu bari ñu ragal alquran lañ ndax wax naa ba tey ñi nga xam ne moo tax ñu ragal wax ci xuur ci tawxid ak ci firi alquran nit ki wax wax ne toll na ci sukuraat pas-pasam mooy yëkka teew ci kanamam mu xool ko bu pas-pasam dëngee mu daal di tiit ñaaw njort ci boppam ñaaw njort boobu mu ñaaw njort ci boppam ba deewaale bu waxoon naa alkane al mar'u yuhsharu ala ma mata alayhi bu fekkente ne ñu nga sëñ bi wax na ko ci mataay bu dinaa ñu wax ne alxaw arrajaaru ragal ngay ragal yàlla ak yaakaar ngay yaakaar baa xam ni dafa war a dangante tolloo képp ba ne ëpp waaye wax boo xamee ne bee jege fi nga notal sa njort lu rafet sa yaakaar ndax suñu borom fokk mu ngay toll jaam bi fa mu ko féete fa mu ko teg rek kon mooy والفرق بين الخوف والرجاء خير التجاهلات بالاختلاف لكن رجح الحمد لله رب العالمين لما يكتب على السلام عليكم léegi sëñ Gour maam Amady ba tey dafa wax ne léegi ndax man ngeen leen mën na noonu leer lu waral léegi sëriñ bi di jeexale xataay xataay loolu léeg-léegi mu jeexale ko. allahumma salli ala sayyidina waaw léeg-léeg maa la waxee noonu damay kon léeg-léeg allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. man de du ma wax mukk mukk mukk ni la xam naa ne waa Sëñ Tuubaa yi sax nga. li ma doon li ma doon wax daal mooy Sëñ Tuubaa xasida bu ñu jël te waxtu woowa ak jamono jooju ak bis booba loola moom la xasida nga war a jël am na lu ko tax ñu am na lu mu gis mu xam ne lii moo fi wax bu xasida gi jeexee am na lu xasida gi laaj ngir jeexal loolu la koy jëlee waaw moom <laughs> day day day laajte waaye euh, ginnaaw bi ñu ngi ñëw di la sant di ñaan yàlla bu dal saw fan mu ngi lay laaj ne daa gis bay euh, bay naan mataliyal toxra bi leen jaati man xaada lii am na bi jaati ñu ne boo ko defee maanaam rek dina am jàpp muy laaj ndax si ñu ko bind wala taalibe yi ko kaayee sa bopp. mataliyal toxra bi laa in jaati man xaada lii am na laa ii jaati mataliyal toxra bi laa in jaati man xaada lii am na laa ii jaati ما الدليل السخر بلا إنجاز من قال من أن بلا إنجاز ثم في بطل مرسل الأطلاق لا مدير أبو بكلا لا مقل أي كبلا لسنا موالون جزيار من مكان من تجنل من توقيقات من يوديو بكاجر وقضاي وكالتنا بها اليوم تنبكر dana gudd baat yooyu su ma kon laabal na ko laab boo xam ne li mu bëgg ci xol mooy neex yàlla ñu leen di ñaan yow di ñaan yàlla wala neex xam ñu foteel bi ak safara bi naqaree ci yow noonu la ko li nga xam ne ànd na ngërëm yàlla noonu la ko naqaree ndax purée bi maanaam set boo xam ne set biir bi ci la te du ànd ak ak ak taqal mukk mukk bi laa ijaat bi fole mu ne ana kan moo ma solal laab boobu dan xaadir am na mooy ki nga xam ne moom a wammatal wóorute boo xam ne bi laa ijaat bi mooy dara set na set boo xam ne lu war du ko jege mukk wóor na yàlla wóor boo xam ne ragalutul dara lu yàlla gisatul dara lu yàlla loolu wax yi nit ku baax rawat na wax ñoo xam ne ilham la jóge suñu borom daal ko bàkkeeloo du taxaw rek taxawaayu di sharia tëre njariñ nag aliwoo njàpp nga wax ko rek kàmbal di loolu loolu de ndax nee na lay sa lahu bi dalika tayamumi يوم القيامة شفت هذه النبي سيد بات الإسلام سنبرم دي بكي وان درد كي يوك درد كي سنبرم ماينا كبير موتو دي فريقو كم تمالي من دي خمال من دي رأي أن نبي بو فكي تنين أمريكا جاء بب مول بلد مول نسل لما بوا رجي بوا رجي مدل يتوه لبلا إجاري مقابل لما بلا إجاري لاو بيدي من لا دمري كي كيو من لا دمري كي لا بل سخل بل يجب سخل waaye nag boo taxaw taxawaayu njàpp taxawaayu njàpp ne njàpp xam ngeen ne day setal ci zaahir ak ci baali lu tax ndox ci boppam dafa am rawaxaan yee su borom bi mu bindee lépp lu mu bind day sabal pour wax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum yéen yéen du dégg sabaar yi waaye lépp lu mu doon kii day sabaar muy sabaar bu morom bi mu nekk boo xam ne borom baali mu dëgg bëggoon jógloo dégg muy sabaar bu morom ndox nag dafa am sabaar boo xam ne sabaar sellal la sabaar laabal la sabaar leeral la dafa jiitu dëggu am dañ wax ne sama gars yi dañuy ànd ne xam ngeen ko wax nañ ko Dakar yi te aju ci man jaamu yàlla liggéeyal ma day def àjjana ci lu xisaab te aju ci man liggéeyal ma ko jaamu yàlla dana dem àjjana waaye daañu ko xisaab jaamu yàlla mooy lan maanaam ni ko jaamu ak yàlla waaye waxul mu bàyyi farata yi waxul mu bàyyi farata yi ki nga xam ne dafa aju ci man jaamu yàlla te liggéeyalu ma mu ngi ci xel wu nëbbu ki ci nag ki nga liggéeyalu jaamuwul yàlla nag la yàlla gërëm yàlla. waaw ñooñu ñooñu la wax ne ñooñu ay taalibe ذكر الذين تحلق النجاة من كدر الدنيا وفي اليوم وفي يوم النجاة daf ci am yoo xam ne bu ñu ko waxee dana jur yàqu-yàqu <laughs> waaye taalibe dëgg day jaar yoonu taalibe lan la sëñ Tuubaa wax lan moo di murit wax na ko ci ñett ñetti bay yooyu ku ko ci xam wajaal biya bi xayri man biya taalaxo sa yulaaxil akbiya وجاء ربي لخير من بيا تعالى غوثا يلاخي الأقبياء أكرمه ربي موجر موجر بأنه أمها يدعونا من نقم باخ خماء نفهم دنيا وأخرى نافع نفهم دنيا وأخرى نافع كما تتيم المنافع نجم الباخي من النيران نجم الباخي من النيران دنيا دنيا دنيا أخرى ومن الخسران أرب كل من لو تقاوى إلى سوايا ولي تلاوة وجاء ربي أنهم بلا انتهاء وجاء ربي أنهم بلا انتهاء بلا انتهاء بلا انتهاء سيرين بامبا ما تخمني كل مريد bijalo si yasa do wa inno mi nana sa mu baasu dafa guddi da sëriñ bi nekk ci point ma bëgg rek mu eggale ko ngir jëmi sëriñ Tuubaa bisu tey bi aji ju tiwaay fas ان شاء الله سيرين تبادي نكو فاج تي امنا لوما تي خام كون بسم الله ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من اجل هناك افضل من هناك افضل من اجل ان يكون jëfee xasam ci leer kon sopp gi ku aju ci moom mën na ko def ku aju ci moom mën na ko def daanaka ñëw ngir yëg na ni bindee géej ngir texe bindee géej gi nag dañ ne ko ba muy ñaan day ñaanal bi bi ñaanal sax yéeg yi bindee géej lay ñaanal li nga xam ne moom la ngeen ko màggal loolu moom si màggal li ko ngeen ko màggal ngeen koy màggal la ñu ne ana arab la ñu yéen a ngi borom suñu jaam yi la ñu dem ñu war a demee suñu ootee. fekk nag donc li gën a xeet li gën a xeet jëm ci farlu yàggal sa borom. Thank you. Jumlah syaitan malam Jumlah amma waladul kenn ku nekk mën na cee jëriñu ndax bu fekkee ne maanaam sa sa sa xam-xam daa àgg ci yenn téere yi dañ ko jàng am na laaj yoo xam ne buñ ko laajee dañoo déglu ba xam ci jàng téere yi lan nga lay tontu nga mën cee jëriñ ndax ëllëg waaw ba mu ne ndax dund am na wala wala bu mu wala bu mu cos ak bu amee bu mu cosaanoo lay laaj <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh بعد ما بكرة نعمل كونفرنس ديال كونفرنس إدارة المزلون waxtaan naa ci mbir moomu ko ci toppatoo kafem bi ndax yaat na xëy na laaj moom tontu li du mën a gudd ak jamono bi waaye ne conférence boobu moom wax naa ni lu yaatoo yaat lu bari li ma ci xam ne naa ci delluwaat fii rek mooy ne li war fi wax wax teef wala nekk teef wala ba ñu gudd ba ñu sutante wala seytaane wala ci woowu buñ deewoon dama ñu ne dem tur fu mu jógee ñu ne chaari bu dem dem chaari bu dem ci dem dem boobu la dem jógee am na nga xam ne noonu lañ ko wax chaari bu dem mooy tekki lan kuy naan deret kuy naan deret jooju nag chaari bu dem boobu nag mi nga xam ne noonu la xeeti njabar yi suñu borom bindaale ci jëmmi doomu aadama ni ñu wuute ni ñu tasaaroo ni ñu bare chaari bu dem yi ëmb leen ci turam ci turoo ba mu tax nit chari bi ñu ne chari bi demee mais mooy kooku. mën ma def. mais. mais question bi njëkkee am na wala amul bu amee ndax dafa dajale nit ñëpp ci xeet wu nekk ci réew mu nekk la am wala yen am ci yenn réew ak yenn xeet bàyyi yenn. ak bu amee ni mu koy waxee ne la demee wala demee am ñu am na am ñu ne amul ñu ne amul ñoo gën a gàtt xel ndax nangam amul mooy li yàlla def lépp xam naa ko te lii bokkul ci li nekk kooku moom buñ ko laajee xettal du ko joxe kon liñ ma wax mooy gëmuma ki ne am na ki ne am na daañu ko laaj luy sa tegtal ci ne am na ak yow mi xam ne am na nan la mel bu ñu nan la mel lu cosaanam maanaam kon lu koy waral di ay laaj yoo xam ne yu ñu yàgg laaj la yàgg naa ci bitu diw ci ko laajee am na wala am na ñu ne ko lu la tegtal ne am na mu ne mu joxe ci tegtal boo xam ne nee na ci diw sàngam la njëkk a gisee li ñuy wax bëri gannaaw ne lu mel ne li nga xam ne moom la ñuy euh, def boo xam ne dañ koy ay seel seel seel lu muy tege ci diw fas ci tàkk ji mu ne lu mel noonu moo koy muur am keneen mu ne am na ñu ko li sa tegtal mu ne damaa jàngaloo jëmm muy tàkk ay mbagam di tàkk muy dox ñu ne ko loolu ndax Iblis daf ko mënul mu ne Iblis kay mën na ko waaye damaa weesoo borom foofu mu ne léegi gannaaw écart même ki ne amul moom moom da nga bëgg a xam ne lépp te suñu borom na wa yaxluqu maa laa ta'lamuun kon yow alxuraan weer dina di nga wax bu amul it yow xam am na ci xam-xam da ngaa waaye amul benn tegtal ci ne amul ñooñu ne am na kon nañ seet tegtal yi ñu tegtaloo ndax li ñu mën a jaaxal ci loolu mooy nit koo xam ne mën na nekk fii lor nit te kenn gis muy ak gànnaay kenn du gis mu jóg taxaw tiim ko jëfandiku ci moom lu dul lépp di baatin ana lu ko mën a tegtale mais xanaa bu ngi jàngee charia ci l'islam da ngay gis bët bët yoo xam ne su moom dafa def ak borom la ni yoo xam ne su moom dafa def tooke ak borom xol yoo xam ne su moom dafa def tooke ci seen xol ñu indi ay gis yoo xam ne si jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xam ne doon sangu nit romb ko ak ak rafet yaram musuma gis ko di def daan soo waa ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana kan ngeen ñaaw jot ñu ne diw dana waxoon nag wax nangam ngeen lañ ko woo ko du ñëwee mu galaxliku raxas ko ñu ko waaji bu di jóg mel na ngay ko bu ngeen jàngee fiqh l'islam bu ngeen jàngee risaala rek risaala si nga abi zid al qayrawani da ngay gis ku ku bëgg jàpp wala la leen liñ koy jëfal di ko sotti mu mel ne noonu ma nekk loolu léegi moom la yonent bi saa sama santaane nañ ko yoon bu ngeen jaagee ci wàllu nit bi sëñ Tuubaa bind wa yusjal mi'yaar xaysu stahara bi durri fi manzilihi iqaba mu ne waa ji nga xam ne day looy ci ay bëtam ba loolu ci wér ñu xam ne du nit koy looy la yoon dafa def ñu tëj ko ci këram dootu génn yoon a koy dundal ñu góor bi dañ koy tëj fi manzilihi xaysu stahara lan mooy problème bi lënt jiw moom la ndax lu tax lépp lu mën a tax nga ne jiw la rek iblis mën na lool bu fekkente ne da nga ne ji daf ma dóoroon ma doxee ci nangam dal nag nangam yooyu la dal iblis mën na xam démb rek dana la dal mu mu fexe ba sa diggante ak waa yi li nga xam ne noonu lay dawee ci biir deret nit ak yaramu nit ànd ak deretam daal di xëy waa yi ci mu wong la mu wong la sa bopp bi di metti fekk iblis moo xamoon ne sa bopp bi dana metti wala moo xam ne bis sàngam ëllëg nangam dana la dal te dana wax ba daje diw mu soppali ko ci gént diw moomale feeñu la wala mu laal la fay war a metti bu ca suba taal nga xëy daje kooku dal di man de géntoon naa ko dafa jekk ñoom boo leen géntee rek soo yeewoo daje ñoom ñu gis ñu dem ci jamono mag ñi lu kenn mënu woon a weer dina tax dañ ci am ci ay expérience lu ma junni lu ma téeméer yu bare bare bare loo xam ne li ñuy wax tawaatu nga xam ne boo ko xaj saxalee ñu xam ne sax na lu wér la am nañ ko ci tawaatu ci ay tajriba yoo xam ne te yaram yu am ci réew mi la lu jiitu jamono yi ñoo tubaab yi waaye ñu gis ne itam bari na ci loo xam ne dañ ciy tooñ nit te loolu mooy jaam bi nga xam dañ ko jënd kenn xamul fu mu bokk kenn ko amul ku koy ku ko mën a défendre bu ñu ko tamee itam du am mbokk yu jóg sox seen fetal di xeex ak ñeent day daal diwee rek nit xulóom nit muy mu jëm wala mu tam ko ah timis na de naa nga naan nit di romb bu jégg loolu ah nit yi dañ koy doy man dama ne kii di wax teg yow ko timis na nangam ñu teg ndaal ndox wuutu daal ci taw wala wànq nit ki naan ci am feebar amuñu docteur yi kër gi mën a xam ne loolu la ñu ne kër diw la naan yoon ndox ñoo ko mayoon ndox mu war a dem kër diw lekk fa ñam dañuy teg feebar ba ñëw bu fekkee ñu ngi ko ko doon wax ñu ne ah diw de dafa nekkoon kër diw rek ba ca loxo dee dara wóoru si ñu ne waaw kon nag kon li ñuy wax jaafur moom ah kon bu bu bu njëkk amul na jaafur di amee ñu ne lan mooy jaafur mu ne mooy nit ki xam ne day wax rek maa ngi jox saa yoon diw. maa ma nekk maa def naan ñu ne nit nit kat buñ ko dee tooy ba mu xam ne dañ koy tooy xelam ci yooyu rek lay nekk bu doxee it loolu lay wax loo mu bari doon ay coow yoo xam ne ci mbiru njëkk bari na lool li tax nag ñu dem ba nga xam ne ñu koy yor di ëpp mooy national occidental tubaab yi ñëwee pour ñëwee ci médecine xew-xew yu bari ne bu njëkk lii rek la woon te muy dëgg ñu daal di wàññi ragal gi wàññi ngëm gi waaye muy loo xam ne neexu la ndax expérience yu bari yi moo xam ne mag ñi koon nañu ko ci te mooy ay xiste yu biir ak borom yi yoo xam ne xam nañ ko mënuma sukkandikoo wax ci yi ndax jabar yi li ñu waxoon ci Iblis rek nekk xam ne dafa demoon ca Adama di jaamu yàlla rek nekk ci aw doj ci doj yoo xam ne dafa xool ci suuf foofu lay dëkk Iblis bëgg ko yàqal mu daal di fekk benn jànq mu daal di koy fàtte dox loo ko garab bu ñu def ko gis di yokk rek ndox gi ba benn ci mu dikk leen am na benn benn góor benn sëriñ bu nekk ca àll bi kooku rek bu ko ñaanaloon rek benn koy ngóor mu yël ñu daal ko fa yóbbu di ko eh, ba bi bir xiif ñaanalee gis daal di rot ci nga sakkan bi ko doon metti mu daal di leer ah góor gi de moom rek moom moo ci mën dara gis léeg-léeg mu daanee ko ñu mu ko dig ba mu yàgg daanee yi jege yoo jege yoo jege yoo ñu ko nañ ko bàyyi kooku kon mu koy ñaanal jiit daal ay fexe ay fexe mën bon am kon église li mu mën bari na léegi nag weer bi nee nangam amul moom aventure la yow yàlla ah mën nañu dëgg ci expérience yi ñu def yëpp nag ne am na waaye diw ñu mën la moom ku koy ku ko wattu ne nga dem saxal ndax koo tam yàq nga addina te koo yàq addina nga yàq sa laata baax na doy na asalaamaaleykum xamal ñeneen question waaye عن ابي بكر فامنا لما لا تكتب عنه ما ظهر عنه قيل اشهد سنه محتملا فما واهلنا واثنى على واثنى وصالحين لا تكلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكل خطانا وانزلنا عن قبل اليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارنا من النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكل خطانا وانزلنا عن قبل اليه فأمرت له بإخواننا أن يطرقنا به من مات يكون في الجزاء ربنا اللهم يا من بيت النبي ولا تنادي كلمة ولا من أهل كلمة اللهم لا تقدمنا في محامنا هذا فقط إلى أمرت ولا مرد إلى أهل ولا أحد من هوى الدنيا ولا إلى أحد ولا جهل إلا اللهم لا تشرك بنا من هلنا ولا من أحدنا فإنك تقضي ولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم كل من نصر الدين وتعلم منه ومن خلقه وعلى كل من يشرك فاتحه ويسأل من حياته اللهم كبير من ما تحسن من نصر ولا من كل أعداء الدين وقال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi màggal Tuuba